daal leen ak jàmm seen seen bii di seen njëriñ TV kii di président Ousmane Sonko ci grève de la fin bi muy amal ba tàmbalee ci saa si la commencé am liñ dippee gain de cause lu tax ñu wax li ni mel mooy que ne lenn si lu sabab lu waraloon ne kii di président Ousmane Sonko di def grève de la faim loolee daal nañ koy saafara te loolee du lenn lu sàkku teefu ay détenus politique yu nekk biir kaso ba ca Ziguinchor te ñooñee seen lim daal di yem ci. 180 détenus ñooñee ñoo doon saako ci directeur de prison bu leen yoree woon foofee ngir ñu daal di amal ay waxtaan ngir ñu xoolaat seen condition de détention yi nga xam ne ne dafa gudd lool waaye tamit ngir ñu daal di fay libérer ay mineurs yi nga xam ne dafa bokkoon seen biir ci li ni mel nag directeuru prison bi da leen a bañoon li ni mel loolee moo taxoon détenu politique yooyee nga xam ne seen lim bi dafa yemoon ci 180 tàmbale woon di amal la liñ dippee grève de la faim ginnaaw ba kii di président Ousmane Sonko yëgee li ni mel nag ba daal di tàmbale moom it liñ dippee grève de la fin daa am ay ONG yu dem foofee ci kaso bi daal di def euh, ab médiation bi jaar ci diggante détenu politique yooye ak euh, directeuru prison bi ginnaaw bañ amalee ay waxtaan ci seen biir détenu politique yi daal nañuy dakkal grève de la fin bu ñu doon amal ci biir kaso ba ca Ziguinchor tey ci vendredi gi si li ni mel ndax kii di président Ousmane Sonko dina dakkal grève de la faim bu muy amal ndax loolee bokkoon na ci ay sababam waaye tamit du loolu kese moo sababoon kii di président Ousmane Sonko tàmbalee liñ dippee grève de la faim ndax kii di président Ousmane Sonko tamit nee na liñ ko jàppee ci réew mi di Sénégal te tegul ci dëgg ah te tamit tegul ci yoon loolee tax na tamit muy amal grève de la fin ak tamit ay jigéenam yi nga xam ne dañ leen naa jàpp biir kaso ba ca Ziguinchor te ñooñee tamit di amal grève de la faim waaye am na benn ab gain de cause. waxtu bi ñuy wax nii bi nga xam ne ne kii di président Ousmane Sonko am na ko ci grève de la faim bi muy amal ci réew mii di Sénégal